dañoo ànd ak yéen bu ngeen leen ñu seetaan naka ngeen koo dem taajee ji waaye suñ mbokk yi nga xam ne yéen a ñoo seetaan dégg gis ngeen tey xale góor yi liñ waaye maa ñoom dinañ nekk ci studio bi képp koo xam ne bëgg nga bokk ci programme bi ekkati nga call ci 4373910 nga call rek yéen ñi nekk bitim réew 4373910 kon doog ne ànd ñu dem ci studio bi waaw mu nekkoon tooga bu am solo ngeen gis li nga xam ne ni moom la waa salaam di am tooga mu nekk tooga bu am solo tey na ma am ki nga xam ne mooy caat ak ki nga xam ne ni mooy am Seydina Omar caat nekka ni Seydina Omar nekka ni mu nekka lu am solo tey nag ma war a ñëw jàkkaarloo ñoom mm-hmm. ñu war maa faram-fàccee li nga xam ne moom lañ tooga mu nekk tooga bu am solo waaye am dama dooree na si caat nga moom moo dooree moo dooroon ci <laughs> li nga xam ne di diñu won na kos yan a cee war a dem waaw Thiat nga toogoon lu am solo ngeen toogoon lu am solo. ma mën naa di kontaan si tey tamit lu ñu accès tey si place bi mhm. ah, pour war a waxtaan ah, cin lu nice luñ tooga muy benn ci ni cocktail bi waaw man maa nekkoon si cin bu mag bi nag ah, wàllum suub maalo beeg yooyu waaye kii moo ganaar gi <laughs> waaye tey na dafa nekk loo xam ne dama bëgg ngeen faram fàcceel ñu yéen li nga xam ne moom ngeen tooga su nekkee ne dugg nañ ci biir waañ bi mhm. dafa am solo pour ngeen wax ñu yéen lan ngeen tooga ci at bi nga xamee ne fi nekk ni dem ngeen bi dogat seen yaapa bi you know raxas seen ganaar bi ba pare mhm. boobu da ngeen ko tegee boor lan ak lan ngeen wol waaw wol nañ lu mel ni liñoŋ waaw ak suñ kaani wi tamit woñ poobar bi tamit boole nañ ko si poobari doom bi waaw ba pare tamit wol laaj bi tamit <laughs> si ba pare tamit diwlin bi tamit tamit lu ñaari pot lañ def because of bu njëkk ba tamit suñ mag yi dañ daan oytu diw waaw dañ daan oytu diw moo taxoon gars yi gën a dëgër waaw so ba pare tamit bu ma defee loolu noonu Seydina Omar tamit amee tamit bu ndaw bi waaw Seydina Omar dégg nga ko caat moom war na li nga xam ne moom ngeen di firkasee si mm-hmm. waaye yow woon wàllum roofi ganaar gi waaw bi nga raxasee sa ganaar ba pare lan nga roofee ganaar gi waaw li ma ko roofee ay lëjum la ay yu sew yooyu waaw yu sew yoo xamante ne <laughs> laaj bee poobar bi gis nga moom laa dëbba rek waaw waaw ba mut waaw waaw ma def nii bi ma raxasee suma ganaar and everything. waaw waaw ma ma ma ah, dog site si. waaw maanaam fi nga xam ne pax bi ma war a. fi am suuf waaw mu ngoog fa laa war war faa roof bi. waaw waaw mu nekk roof boo xam ne dafa ànd ak ay safal. waaw yu am solo yu am solo. waaw waaw bi ma paree gis naa ni yaa ngi doon riib lu mel ni si am na yoo ko doon. waaw mu ngi noonu mu beeg. Ah, poobar bi. waaw da gis ne loolu tamit beneen safal lañ ci yokka. maanaam lépp waaw ci safali salaam ji la la waaw <laughs> yaa ngi gis lii ma def nii waaw waaw mu taada beeg ay affaire yu garaaw laa ci boole waaw gis nga war koo mun a teg ci ah, sifin bi si sujeer bi because lii fekk nañ bàyyoon nañ diwlin bi tàng na ba xam ne dina mun a saas moo tax gi mun a brown nii waaw jox ñu kola bu rafet waaw waaw waaye tamit ma gis ni bi ngeen bi ngeen demee ba nga xam ne ni fay ngeen ba pare mm-hmm. ngeen ñëw na fi mu nekk nii pour ñëw firkase waaye ma gis si nag lu am solo muy yéet bi. Mhm. waaw waaw da gis ne yéet. waaw ah dañ ko war a fonk bu baax. waaw waaw ah. baa nekk waaw because of <laughs> yéet yii dafa nekk loo xam ne nii soo koy jënd si marché bi daf dee xalaat xesaw tuuti waaw foog nga raxas waaw te mhm. yéet moom moo dee safal cin waaw def net li moo dee safal cin ak yéet nii si benn cin waaw moo dee safal cin da ngaa gis ne tamit dama mhm. dama dañ daan bàyyi xel tamit suñu yaay su demee marché bi ñëw waaw léegi léegi jàppale ma mhm. jàppale boobu noonu si waaw fii moom yéen a ngeen ñulug fii moom yéen a ngeen ñulug suñ mbokk yi nga xam ne yéen a ñoo seetaan fii ci Gambia radio television services tey gis ngeen ko waa Salam ji ñoo fi nekk tey toogalu nice mooy lii nga xam ne nii ñu ne benn ci ni cocktail lañ ko toog togge yëpp rek ci countdown yi tabaski bi la incha allah bu ñu ko yàlla mayee fekkee xale yu góor yi dal di togga li nga xam ne nag mooy benn ci ni cocktail te xam naa ne nag kër yi yëpp dinañ ci dal di jógee rek dal di def benn ci ni cocktail mu am tamit loo xam ne daf ma doy waaroon ci togga bi dama dee gis ne yéen supame bi da ngeen ko jël grate ko xal koo jël mel ni ku ko jël frecc ko ak carotte bi ak green peas bi ak li nga xam ne mooy nawe bi waaw mm. moom ngeen jël bi ngeen paree rek yóbbante ko maalo mi muusale ko waaw waaw loolu yëpp si suñu safal bi la bokk waaw yëpp ci tooga bi la di dem <laughs> because ñu def loo xam ne nii waaw dinañ xam ne nii ah dëkk waa salaam ji ñoom dañ dee waaw dafa baax sa ñi di tooga tamit wane seen feem nekkoon loo xam ne yéen def ngeen li nga xam ne ni digga digga dama bëgg nit ñi nga xam ne ñooy seetaan tey ngeen bokk ci programme bi call ci 4373905 bi te ngeen koore si 0022043733910 pour yéen ñi nga xam ne yéen a nekk bitim réew waa salaam ji client tey waa salaam ji tey ñu toogal ñu fi loo xam ne ni tooga bu am solo la ngeen gis ne tooga bi li ci war a dem yëpp dem na ci am benn cin bi daal si xayma ma bëggoon a la te nit ñi ñoo seetaan xam nga su nekkee ne suñu ko yàlla mayee fekkee tubaski dimbaat se nañ koy pare yéen ci seen xayma mm. ñaata poti diwlin ngeen toogee waa ñun moom ah, si maalo bi waaw ah, si maalo bi man maa nekkoon si mbanda bu mag bi. waaw ñaari pot lañ def. ñaari poti maalo ngeen def waaw waaw waaw <laughs> dañ dee oytu diw loolu ñaari pot. waaw loolu sax ma cee yokk a mag yi waaw ñaari poti diwlin ci ñaata poti maalo. waaw five cups lañ si five cups si maalo waaw mhm. because da gis ne loolu dafa am solo waaw mbiri diwlin boobu mhm. because health wise mhm. da ngaa gis ne ñu ngi jëm a educate nit ñi waaw because diabetes and high blood bi dafa bari waaw so in another way ñu ngi jëm a discourage nit ñi waaw pour ñu moytu diw bu bari bi ñu dee use because da gis ne sauce bi ma xam ne moom laa prépare pour sauce bi ñu jagaree affaire bi pare waaw boobu mooy suweer bi suweer bi sauce bi sauce bi maa ngi use only half cup of um, oil yaa ngi gis loolu yëpp ñu ngi laa wone comme diw bi foog nit ñi moytu ko. Mhm. sakatuma la gis nañ ne. Mhm. tabaski bi mu ngi ñëw. Mhm. tey yàpp tabaski dafa am diw dafa am te ngomeen. waaw <laughs> soo fa diw. soo moytu leen ma lii man moom laay wax moom. dañ <laughs> dee bugg a ba diw bi di siit nii di siit nii. waaw gis nga waaw waaw foofu noonu am na solo ñi ñi ñoo seetaan xam nga dinañ bugg a jàngat. yéen tey wone ngeen fi loo xam ne si ñaari poti maalo ngeen def five cups si diwlin si ñaari five two cups si oil la waaye ngeen def juróomi ah, poti maalo mu nekk loo xam ne nii yéen ci seen xayma mel na ni sax sooy toog su nekkee ne julli jooju na graisse bi dafa bari yéen fi mu nekk mun ngeen a jël seen benn pot bi sax mun naa tooga seen benn cen benn cen bi ah, waaye yéen wone ngeen ne gis ngeen maalo mi bariwul diw te li ngeen ci nomoon yëpp am na ko ci waaw ñu bëggoon a tamit ñu gis ne soos bi biñ koo tooga gis nañ ni def nga si yu bari waaye yëpp rek ci xaaf pati bi la mun nga ñoo wax lan ak lan moo nekk ci soos bi waaw soos bi li ci dem mooy sausage bi dem na ci sausage bi sausage bi dem na ci ak liñong bi ak liñong bi waaw mhm. am gis ne ak yeneen ingrédients yoo xam ne like mooy rafetal palaat bi waaw da ngaa gis ne loolu carotte bi carotte bi nawe bi nawe bi mhm. kakumba bi moom. waaw da ngeen ko defalee da ngeen ko laal bokk ci moom boor. waaw waaw pour war ko mun a décorer. Mhm. am li nga xamante ne mooy benn ci ni cocktail bi bi mu paree. waaw mooy kakumba bi ak carotte bi. Mhm. because affaire yi bi mu paree dañ ko design salaam ji. waaw lañ ko designé. Mm. so loolu nañ ci bàyyi because of artistic. Mm-hmm. lañ use ci mbir mi. mbir mi waaw dañ yekka dafa am style. dafa am style te yekka dafa am dafa am yoon. dafa am yoon. waaw yekka ak ak ak ak lifin ak teege ak ak ni ñoo teege dafa am solo am soo ñii sëy. waaw waaw man suma euh, mbokki jigéen ñii sëy déggal ma naan mbokki suma xarit jigéen ñii sëy waaw dama bëgg ñu bàyyi bu baax ni ñoo képp ku bëgg a jagar sa dafa am solo sooy sooy sooy yekka. waaw. because soo prépare yi ba pare. waaw dama sangu ji ñëw. because gis nga ne gis. da ngaa change waaw sangu ngeen tooga ngeen nag waaw second part bi. waaw ñu change clothing bee yooyu. waaw mhm. ñëw yàkka mu nice ba pare teg teegin bu nice. Mhm. soo saakatuma laa jigéen bi war a sëy. ndeysaan teegin bi dafa am solo trop. dafa am solo dafa am solo waaw am solo ba tax na mhm. suñ mbokk yi nga xam ne yéen ak ñoo seetaan tey ñu am fi waa Salam ji ñu toogal ñu li nga xam ne ñu ne mooy benn ci ni cocktail. waaw mu nekk tooga bu am solo tey nag ñoom ñu ngi fii am naa ne du ñàkk ngeen am lu leen bugg laaj képp koo xam ne bugg nga bokk ci programme bi rek ekkatil fi mu nekk ni sa téléphone ubbi nañ line si ngeen call leen ci 4373905 mooy number yi ngeen di gis ni ba tax na tey ñii liñ fi tooga dafa am solo ñu tooga li nga xam ne mooy lan ñu ne benn ci ni cocktail mu nekk benn cin bi nga xam ne déggeen ngeen ko ñaari poti diwlin ngeen cee dal di jël benn liñong mooy bi soo leen ko firkas commencé moom lañ gaa yi jël pour am rosé ko li nga xam ne nii mooy seen tooga bi wol ko poobar bee laaj bee loria bi ba mu nooy dal di nag lan def li nga xam ne mooy seen yéet moom lañ koy njëkk a fraye nga xam ne yéet bi ci boppam dafa génne cafka benn cin bi ñu bàyyeegum ko fa dal di jël nag di rosé di rosé ba nga xam ne nii seen rosé bi dog na ñu soog a jël ñulug di ngeen gis ne foofu la caat doon ñulugee waaye caat am na ku nekk ci line bi kooku dañ koy njëkk a jël dal di ko nuyu naan ko hello asalaamualeykum lo